Futurs Médias on se retrouve euh, pour quartier général euh, ñu ngi euh, ci waajtaay bi dans quelques instants me rejoindre équipe bi nga xamante ni ñoo leen nar a gunge tey ci guddi gi en direct ci télévision Futurs média ma jàmm ba jàmm ngeen yendoo en tout cas ñun yendu nañ ci jàmm koor gi mu ngi dem lu ñuy gën di dem rek muy gën di wàññeeku mine de rien ñu ngi bëgg a def ay fan quand je parle de mine je pense à Daouda Mine le très grand journaliste sera avec nous tey ci quartier général euh, euh, balaa ma leen di wax euh, invité bi kan lay doon dama bëggoon ñu tàmbali ak première partie quartier général muy li nga xamee ni mooy téléservice bi dañu koy njëkkee ak prévision météo yi baax na ñu leen koy baaxee puisque bu ñu leen ko joxee di ngeen mën a am aperçu climat bi nar a am ci seen gox donc mën nañu njëkkee ak tableau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour jox leen euh, température yi d' abord suba euh, dëkk bu ne ak li mu nar a yeewoo ci euh, ci wàllu température Dakar ak Saint-Louis comme d' habitude comme ñoom dañoo nekk ci code bi jege ndox donc ñoom ñooy yeewu ak température yi gën a ndaw gis ngeen ni Saint-Louis ëllëg dina yeewoo ak température yu nar a toll ci 19 degré Dakar dina yeewu ak température yu nar a toll ci 20 degré bin météo prévoir Dakar fi nga xamee ni euh, moo di euh, Linguère euh, bu wàccee tuuti mën naa toll ci 19 degré diggante Diourbel ak fi nga xamante ni moo di Saint-Louis mën na yéeg nag ba 21 degré ci dëkk bi nga xamee ni moo di Kaolack Ziguinchor itam 21 degré 23 degré le Kolda nar a yeewoo suba Matam dina yeewu ak température yu nar a toll ci 27 degré Tambacounda nar a xëy ak température bu toll ci 26 degré quant à dina xëy suba ak température yu toll ci 28 degré euh, bu ñu demee nag euh, ba ca ngoon nga thermomètre bi euh, mën naa yéeg daanaka ba 47 degré 47 degré mooy température bi Matam nar yendoo suba incha allah bu wàccee mën naa toll quand même ci ay 44 degré 41 degré 44 degré boori Podor ak fi nga xamee ni mooy Linguère ba Tambacounda dina yendook température yu toll ci 44 degré Kédougou nar a yendook température yu toll ci 43 degré Kolda 43 degré 38 degré Ziguinchor 42 degré Kaolack Diourbel 41 degré Dakar ak Saint-Louis dañoo jege ndox mi ñoom seen i maximum euh, daanaka mooy gën a néew euh, yeneen dëkk yi donc Saint-Louis 26 degré lay yendoo suba euh, Dakar dina yendoog température yu toll ci 24 degré bu weesoo température yi mën nañu leen baaxee géej gi njëkkee ko ak waxtu mare yi dañu koy njëkkee ak waxtu marée haute yi bu njëkk bi météo dina ko seetlu bu 5h14 du matin jotee marée haute bi ci topp dina ko seetlu bu 19h29 jotee waxtu marée basse bu njëkk bi euh, météo dina ko seetlu ci bëccëg bi exactement bu 11h05 jotee euh, waxtu bi ci topp euh, guddi gi lay doon bu 23h08 jotee ba tey bu ñu desandee ci géej gi mën nañu leen baaxee waxtu yi nga xamante ni moo nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi ci suba gi lay doon diggante 9h30 jàpp 11h30 ko mooy guddi gi mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi diggante 21h53 jàpp 23h53 découvrir jant jant bi xool ëllëg euh, ci ban waxtu euh, la nar a euh, jóg 6h42 exactement dina tëddi guddi gi. bu 19h32 euh, jotee donc presque heure ndogu euh, ci la jant bi euh, di tëddi loolu bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel ñuy gërëm bu baax service national météo guddi gu jot ñoom ñoo ñuy baaxee xibaaru jaww ji ak prévision yi nga xamee ni moom la ñu jàpp pour suba bu weesoo météo bi mën nañu leen baaxee taux de change bi bu ngeen bëggee wecc CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi tableau bi ci la ñuy sukkandiku pour jox leen dëkk bu ne ak xaalisam bu ñu ko bëggee wecci ak CFA dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique un dollar euh, ñoo ngi koy weccee 584 virgule 404 euh, francs CFA un euro ñoo ngi koy weccee 655 virgule 957 francs CFA une livre sterling xaalisu grande euh, ngi koy weccee 757 virgule 287 francs CFA un yuan chinois ngi koy weccee 84 virgule 9692 francs CFA un wan dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee onze virgule sept mille neuf cent quatre vingt neuf francs euh, CFA comme Sénégal dëkk tukkikat la guddi gu jot euh, ñu baaxee leen euh, taux de change bi wala devise bi bu ko defee yéen ngeen xam ñaata ngeen di weccee CFA ak yeneen su yeneen dëkk yi bu ñu àggalee téléservice bi dañ leen di baaxee li nga xam ni moo jëm ci waxtu julli yi je rappelle que lii horaire de base la parce que dëkk bu ne wala quartier bu ne ak waxtoom mais différence yi ci ay minutes rek la toll donc ce qui veut dire que mën ngeen sukkandiku. Euh, ci euh, tableau bi euh, pour xool waxtu wu ne ban heure la ñu koy julli fajar gi incha allah julleem 5h26 du matin la tisbar daañ ko julli 13h07 takkusaan daañ ko julli 16h23 timis julleem mu ngi toll ci 19h35 gée daañ ko julli 20 h li ci des nag mooy waxtu wala naafila yi bu dee defagu leen ko ñu ngi xaar oustas ci suuf la ñu koy fekki bu ko defee bu ñu ko fa fekkee euh, moom itam mu jox leen naafila tey en attendant on découvre ensemble équipe bi nga xamee ni euh, ñoom ñooñu euh, nar gunge tey ci quartier général bi regardez ils sont train de se préparer pour li nga xamante ni mooy premier talk show fii ci Sénégal bokk na ci ponk yi ñu nar a waxtaanee ak Adja Mati Dieng daañu ñëw ci jànk yi nga xamee ni ñoo nekk Liberté 6 jafe-jafe yi nga xamee ni ñoo ngi koy dund loolu mooy sujet bi nga xamee ni moom la Adja Mati Dieng la rencontre de ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ci boori VDN bi ñàkkum cet ga fa ne euh, bokk na ci euh, lu ko naqadi ak ña fa dëkkee donc def na ci ab reportage Yacine sera avec nous euh, daañu waxtaane lépp loo xame ni jëm na ci wàllu sécurité dinañu waxtaane lakk yu bëri yi nga xame ni am na fii cause bi ak incendie yeeg saafara yi nga xamee ni bëgg nañ ko cee am loolu bokk na ci yi nga xamante ni moom la Yacine préparé et puis Daouda Mine sera avec nous nous Marie-Louise Ndiaye sera avec nous ñaari tour la yoo xamante ni fii ci Sénégal euh, bu ñu leen déggee xam ni ay journaliste investigation surtout euh, ci wàllu justice ça veut dire que ki ñuy recevoir tey xam-xamam màcc na euh, ci wàllu yoon laataa ñu koy découvrir on va prendre une petite pause le temps de rejoindre équipe bi nga xam ne ñoo leen di gunge tey ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal jàmm feesal féexal ngeen ramadan weeru alxuraan dama koy yëg sama biir xool dooleel sama biir man su ma sañoon nga nekk fii ak man saa su ramadan ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur euh, Média àggalik quartier euh, général liñ ci toftal léegi euh, moo di waxtu afan naafila yi ak oustaz Assane Seck ma nga xam ne ni moo jiite daayira bu télévision Futur Média àjjana xale yi mu ngi ci say loxo loolu nag yéen wu diis la ñu ngi ziar bu baax yaa oustaz joxati la sa wàccuwaay comme chaque soir. a ba Cheikh ñu ngi lay delloo ziar di la jox sa wàccuwaay télévision Futur Média. ñuy topp guddi gi nekk ci quartier général ak évidemment ñi ñu bokkal plateau bi comme ni nga ko waxee rek tey euh, moom mooy guddug juróom-ñetteel bi si ñi nga xam ne dañu waroon talaata guddug juróom-ñeenteel si ñuy waroon altine euh, li am solo mooy yàlla na borom bi subhanahu wa taala nangul ñëpp euh, naafila tey bi nag dañu ne ñaari raka la rakk bu nekk man nga si da si siy jàng fatihatul kitab ba mu jeex mooy fatiha bismillahi rahmaani rahim ba wala dallin amin boo paree nga def qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad fukki yoon ak ñaar maanaam douze fois si première rakk bi deuxième rakk bi itam nga def li nga xamante ni moom moo di fatiha ba mu jeex boo pare nga def qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min sharri lwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnaas min al nga def ko fukki yoon ak ñaar maanaam douze fois nee nañ naafila bi ku ko def borom bi subhanahu wa taala min na la bindal tuyaabay koo xamante ni da nga wéetal yàlla subhanahu wa taala pendant junney at muy miilaa ngay wéetal borom bi subhanahu wa mu nekk tuyaaba boo xamante ni kenn xamul ni mu toll ku dul yàlla subhanahu wa ndax li ñuy faral di wax rek nit dina def benn jëf xeeb ko fekk neex na yàlla subhanahu wa taala mu fulal ko ko ay junney junney yoon wala ay millions yoon wala ay milliards yoon yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci alquran nee na man maay jël jëf ju baax ba nombre bi nga xamante ni moom moo ma neex kon yéene yi dañ koy sellal rek di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu ñuy nangul ndax bu ñu nangalee rek yërmandeem automatique la automatiquement li ciy topp moom mooy mu fulal ñu li nga xamante moom moo di suñu ay yiw Baye Cheikh di wax ne wéetal yàlla nag moom mooy ponk bi nga xamante ni fa tabarakallahu képp ku gëm yàlla gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam si nga war di sax saa su nekk donc euh, segam tubaab moo ne l'intention vaut vaut l'action waxatuma hmm. laak suñu borom day fay yéene waaw day fay yéene moom la yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli hmm. ne doomu aadama bu nekk li nga yéene rek la borom bi subhanahu wa taala di fay hmm. te jëf yëpp yéene moom moo ko lal tey jii nii bu ñu doon seet nu ñuy dimbali te yàlla rek tax nga joxe milliard te sa yéene mooy ngir ñu wax ko ngir nit ñi wax ko ngir ñu siiw nit ñi tudd ko ne di woo baax yàlla nee na loolu rek nga say am waaye ki joxe cent francs amoon joxe milliard jëmmi yàlla rek tax kooku yàlla subhaanahu wa taala daf koy bindal yoolu koo xamante ni joxe na milliard wala sax mu fulal ko ko ba si nombre bi nga xamante ni moom moo neex borom bi subhaanahu wa taala mhm. kon jëf yëpp si yéene lay lalu moo tax amul benn jëf si lislaam booy def rek te du ne yéene moom moo koy lal mhm. boo jëlee koor yéene moo koy lal boo jëlee julli yéene moo koy lal boo jëlee dem màkk yéene moo koy lal mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon l'intention vaut l'action boo ko waxee rek day delluwaat si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne innamal li ñuy faral di wax ne nañuy sellal yéene yi Mhm. ndax bu yéene yi sellee rek jëf yi daal dee sell mhm. te bu jëf yi sellee rek borom bi subhaanahu wa taala day daal dee nangu automatiquement mhm. amul sax ma dem ñëw ndax yàlla moom moom moo ko wax te nee na laa yu baddalul qawlu la day wa maa ana bi zallaamin lil abid lu ma wax danaa ko def ndax sama wax du taxu man maa yàlla subhanahu wa taala ki nga xamante moom moo di alxaq di le véridique ba cheikh voilà kooku mooy suñu borom daañ ñëwaat ak yow léegi nii oustaz Assane xanaa fàttaliwaat euh, téléspectateurs yi ne mën nañu bokk euh, ci émission bi euh, ci téléphone yi ci kaw ngeen di seetaan ak fu ngeen mënti nekk dinañ leen ko affiché léegi nii bu ko defee ngeen teel mën a woote mën a teel a séddu ci suukaru koor yi nga xam ne fan yëpp dañu ko teel a décidé séddale ci télévision façon itam yéen ñi nga xam ne ni euh, yéen ñuy suivre euh, ci suñu site internet bi di www.igfm.sn di ñu suivre itam euh, ci rajo bi King FM 99.4 di ñu suivre itam ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi am ngeen possibilité di participer ci quartier général bi ak hashtag bi di QG 2019 tey ki ñuy recevoir dañu ko ràññee lool ci wàllu yoon Mamadou Mouhamed Ndiaye xam nga ko bu baax bëri ay dossiers yoo xamante ni moo ko daan toppatoo muy maître Ousmane Seye euh, il sera avec nous euh, bu ca euh, kaname bu ko defee ñu waxtaan ak moom ci parcours am en plus de li muy toppatoo ay dossiers yu bëri bokk na ci itam taxawaayam ñu ràññee ci wàllu politique donc ay ponk yu am solo yoo xamante ni bëgg nañ ci waxtaan ak moom bu ca kaname ci plateau bi juste vous rappeler que di ngeen mën a réagir ak QG 2019 Mamadou Ndiaye. effectivement Pape Cheikh gannaaw ba ma ñu ma bokkal plateau nuyu téléspectateurs yi comme yi ci sunu t bi di QGTFM 2019 wala QG hashtag bi di QGTFM ci Twitter bu demee Facebook dañuy def arobase Télé Futurs Médias bu ñu demee Instagram dañuy def arobase GFM euh, SN bu ñu demee Snap dañuy def arobase GFM tiré du 8 def euh, SN def Sénégal pardon loolu lu mooy euh, adresse yi nga xamante ni mën nañu ko suivre ci réseaux sociaux yi que ça soit ci suñu plateforme wala suñu site internet di igfm point sn nga xam ni dinañ am live bi en temps réel teg nañ fi benn numéro bu téléphone boo xam ne pour WhatsApp la boobu dañuy préciser suñu téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suñu mbokk internautes yi naan la numéro bi du pour woote wala pour euh, envoyer audio c'est juste pour préciser que ni dañuy envoyer seen question via benn vidéo bu ñuy def juste quelques secondes ñu envoyer ko ki nga xamante ni mooy suñu invité numéro téléphone bi di 77 393 96 34 mën nañu suivre aussi ci suñu yeneen support yi comme ni ñu ko waxee sànq igfm point sn 3w point igfm sn euh, quartier général aussi yéen koy jot ci king fm ak aussi ci 99 point 4 ñeneen ñi nga xamante ni raté nañu lii di émission yi jàll ci télévision Futur Média mën nañu euh, télécharger li nga xamante ne mooy application bi di GFM et vous euh, moom disponible na ci Apple Store ak Play Store Pape Cheikh balaa ñuy joxe euh, sukkaru koor yi enfin euh, du balaa ñuy joxe sax woote leen léegi parce que dañu koy teel joxe balaa gën a guddi euh, balaa muy guddee woote leen ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi en attendant ngeen di composé ci benn ci numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi dañuy tàmbali ak actualité tay bi surtout yéen kaay yeeg li ñu xëyee ñaare boo wooree peut-être doo tal yenn yi surtout ci période bi ñu ne mais heureusement saa xel ko ma ngi fi Mamadou Mamet Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, yéenekaay yi nga xame ni tey seeni xët attiré na sa attention ci euh, bëccëg bi ban la ak ban ak ban ak ban. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. Euh, am mbégte di ànd ak ñoom saa su nekk ci quartier général di nuyu ñi nga xamante ne ji yàlla def na. tey jii ñoo ñoo bokk plateau bi. Mhm. ma doxalee sa ginnaaw wala sa kanam. non man nag maa xaw a jaaxal sax yaa ngi mel ni ku toog ak say say say soxna jàkkaarloog xale yu jigéen yu rafet yi. croiser say tànk xaw ma Marie Louise mii doog a ngay dosé ndax ñii dara safu leen bu dee Codom Mbar Ndiaye dara safu ko bu dee Adja Amati Carter li ko saf bëriwut bu dee Yacine mi xanaa xaw nga koo rus man dama foog ni Marie Louise ngay charmer nii. <laughs> loolu laa jàpp de yaa koy charmer de. charmer weeru koor na quand même baaxul oustaz araam na ci faaxan. suñu borom da lay dalay lay da lay dugal safara da lay lakk boo bo boo duggee ci yenn gaam yi en plein ramadan surtout que premier dix jours yu njëkk yi weeru njëggal la ala kulial mais xam nga charme moom kenn mënul wax ne dafa eh, araam. Eh, waaw may leen ma ne ah, da nga charme charme amul yow da nga yow da nga lay charme waa léegi Pape Sarr yow la yéen ñiy filmé atte leen ma Mamadou Mame Ndiaye léegi yow da ngay laaj wala laajoo man laa bëgg xam. et puis dafa dafa dafa dafa visé Marie Louise. <laughs> déedéet Pape. waaye nattal leen ma lii ngir yàlla ak yonent bi lu ma wax rek su ma waxee rek ngeen foog ni ay waxi manka laay wax xool leen Mamadou Mame Ndiaye xool leen Marie Louise Ndiaye. xool leen rek visement visement bi. roubé dafa visé Marie Louise. kii dañoo yàgg. non est-ce euh, est-ce que non est xam nga Marie bokk na ci ñi démarré xalaas. moom mi Marie-Louise Marie-Louise voilà maa ngi moom ñuy ànd tribunal di wuti élément <laughs> topp avocat yi daw seen ginnaaw ah dañoo yàgg maa ngi moom nag ba du mariage bu mooy moo tax nga koy wiise tribunal moom lu ne xaj na fa tribunal du ay jugement rek lañ fay def dañ fay def sax ay mariage waaw loolu loolu loolu la yàlla dogal <laughs> loolu la loolu la du gën ngaa dugal sa bopp <laughs> <laughs> madame Ndiaye laay bañ mu mer mais écoute <laughs> ba ñaar dagan na. <laughs> waaw benn ñaar ba ñett ba ñeent dagan na. mais charme baaxul ci weeru koor oustaz. non attention. xam nga tey jii nii chaque jour ma wax ko mu leer. Hmm. am na loo xamante ni bëccëgu weeru koor lépp. dañ ko araamal ndax day yàqu koor ah. mais tey jii par exemple nit bu fekkente ne da ko bëgg ah. nga dem guddi weeru koor waxtaan ak moom ngir loo xam ne fulla ak fayda la ngir lu leen yëkkati te diine rek tox ah. te yàlla rek tax loolu laay wax bu keneen xam nga day day duggaat ci toujours l'intention vaut l'action toujours yéene yi moom la yàllay fay bu demee pour gàmmu yàlla xam na bu demee pour ras dem itam yàlla xam na <laughs> ci yow mi visé Marie-Louise mi wax yow tamit t'as consent mais lu may consentir. ci Marie-Louise. voilà oui ma Pape Marie-Louise yow tamit défendre. non non Pape non non Marie Marie bul défendre Pape. je je plaide coupable. tu es coupable. je plaide coupable. non plaide pas coupable. du bàyyi rek bañal da ngay bañ. day takkalaate objection. télé moo lay seetaan. Ah, yaa ngi ci télévision déedéet nañ seetal ñëpp rek. Ah. waaw nañ seetal ñëpp rek. jamono neexul jamono neexul. Maria wax lii tey. ah sama sama sama góor nga. Marie chéri ah, ok d' accord bon vous vous connaissez <laughs> euh, affaire de waa RFM mais c' est pas grave Marie-Louise Ndiaye euh, journaliste très respectée euh, mine lool yëfi euh, yoon yàgg ngeen ko déglu euh, xalaas mais en même temps di lire mine ngeen loxoom mine ngeen plumam comme on dit ci l' observateur donc elle rejoint itam équipe bu quartier général ci am solo yoo xam ne ni ça peut toujours nous nous nous servir parce que nit dafa war a xam yoon ak yenn ci ay détails. mais maa ngi mm-hmm. doon annoncé mm-hmm. yéen a kaay yi bët tey mm-hmm. euh, defe naa mën nañ ci dem boo bëggee ma may la loxo nga jóg ay ca déet jaru ko ah jaru ko màggatu gu ma foofu naa ndigalul sa ginnaaw ay ca taxaw sa ginnaaw dara wóoru waaw dafa <laughs> eh, naa nu ma ko doxalee mën naa laa padd léegi nga faqa nga faqastalu <laughs> quotidien nga tàmbale woon alhamdulilah voilà ngi noonu cuuneen la xëy boo déggee cuuneen mooy waa kër Cheikh Béthio Thioune ak li nga xamante ne ji coow la wonte mu mujj féete boor xam nga ñi ngi doon wax naan ginnaaw Cheikh bi kan mooy doon jiital cantaakoon yi euh, Serigne Mountakha Mbacké Mbacke Bassirou xalif général des Mourides moom moo euh, sant ñi nga xamante ne ji ñoo di njaboot gi sant ko cantakoon ñu jiital Serigne Saliou Thioune mi nga xamante ji moom mooy taaw Cheikh Béthio Thioune euh, le quotidien xëy xibaar boobu xëy ñu xamal kon Touba fay na coow li am nay kàddu yoo xamante ji ñi ngi ko nangoo ci Cheikh Bass Abdou Khadre euh, démb ca dëj ba fële ca Madinatul Salaam muy xam le ne ci cantakoon kenn ku ci nekk bu la neexee man nga dem jébbalu ji ci njabootu Cheikh Béthio gu la neex waaye leer mooy Serigne Saliou information bi nga xam ne xëy na ko bari na journal yu ko xëyee mais ñun le quotidien lañ ñu ci tànn Pape ñu jàll ci ci ci beneen yéene xam nga li ñu fi doon wax mu di marché yi lakk te léeg-léeg ñu ne euh, maire yi seen loxo génnu ci ndax mhm. euh, dañuy xool yenn branchement yi di xool yenn installation yi ci marché yi di xool yëf yeeg ni doxee gëmu ci seen bët parce que juuti ñu ci am tax na journal bi nañu euh, ñoom lu jiin jaaga du génne leen ci coow li du yomb ndax bokk nañu ci li nga xamante ne ji jafe-jafe yi seen loxo mi ngi ci mhm. ndax bu fekkente ne danga nga nekk maire gis yenn marché yi ak nañu ko installé gisit la fay def nga fay dem di fayeeku juuti war nga également di toppatoo commerçant ya fa nekk mais également emplacement marché bi tax na direct info xëy leen xew bu yaatu comme moom mooy Miss Karange ci euh, euh, def na ci gëstu bu am solo boo xamee ni di ngeen ko mën déglu bu ca kanamee ci quartier général bi ñu dem ci le soleil soleil national ah. mi ngi noonu gis nga Sadio Mané la jël jox ko xëtamu njëkk mi ngi noonu mu di loo xamante ne ji xëy na jamono ji sax dinañ ko seetlu mais bu njëkk ba bëriwul woon léegi nag Sadio Mané ko meilleur buteur fële ci championnat bu Angleterre ak 22 bi yu mu dugal bari na journal yu ko xëyee bokk ci record mais Soleil national moom moo ko xëyee ba tey xëy ñu xamale moom Sadio dugg na ci taarixu football bu bu Angleterre Pape nañu jeexale ak la turbine ci journal yi nga xam ne tey ji euh, xëy nañu kon euh, ma bàyyi ci xel lool mi ngi nii euh, turbine lu doy waar am ci Pikine Ikotaf cité 2 benn xaj mooy xaj mhm. moo matt benn taalibe bu am 15 ans ba doy na waar anam yi mu ko def euh, am na sax nu ko journal bi décrire mais comme gaañi dañoo toog di seetaan du ñu mën a sori ci wax ji euh, loolu la woon pap mu ngoog merci euh, mën nga dellu sa place mais affaire u xaj yooyu mhm. gis naa ni tey bëccëg bi yëpp def na tollé ci réseaux sociaux yi ay pitbull mhm. après xaj-xaj la mhm. j'ai vu certains certaines personnes di naan xaj bu soxor la ñi naan soxorul xaj soxorul ab mala la ça dépend de ni ñu koy dressé maintenant nag de là a saax-saaxe ay jur di gaañ ay Adama loolu defe naa baaxul. mais Pape xam nga am na yoo xamante ne ji dëddu suñu aada. Mhm. ay yari xajak raaye gaynde jegey muus dëddul suñu aada. mais ku nekk ak sa passion. non du yëfi du passion. am réew boo fa nekkee gis nit ñi def yaram mu neen futteekul. bu doon réewu tubaab bi nga xam ne dañ koy tëj seen biir kër. Mhm. xaj boo ci ne assis mu toog. Mhm. mais fii xaj boo ci ne assis da yaakaar na nga dafa màttal diw. dëgg la ah. dëgg ma. dëgg la xaj daal du suñu aada. xaj moom nañ leen bàyyi ci xaj ja parce que ak nu xaj moom tur bi jeex na ak nu mu mën di mel mhm. noo ko mën di dressé mhm. fu mu mën di jugee mhm. fu mu mën di cosaanoo xaj nu mu def yore ji koy xaj amu sama dem te ñëw en tout cas les avis sont divers ku nekk yaa ngi ci wax ji yëpp daal mooy ñun aadowowuñ ko da ngay dégg léeg-léeg keroog oustaz dégg naa muy wax ne xaj sax bu fekkente ne dafa lekk ci ndab boo utilisé dañu santaane ndab loolu nga raxas ko juróom ñaari yoon waaw mais kii laal xaj moom ñaata fan la war a sangu voilà balaa oustaz Louise après gars yi wax ci. maa ngi lay nuyu Pape Cheikh di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp. sargal ñëpp <laughs> keesante bi moom dernière heure bi la. <laughs> waaw d'accord waaw waaw. coogi fin lay doon maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan am mbégte dellusiwaat fi tey ak ñi ñu bokkal plateau bi yëpp ñu ngi leen di sargal baax a baax li Mouhamed wax rek ci laay ñëwaat xam ne que ni ay xale dañu fa bari mhm. ndax xaj yooyu yaakaar naa ni euh, comme ni mu ko waxee ña nekk bitim réew kenn ku ci nekk am nga noo def sa xaj ba nga xam ni que ni xam na fi muy taxaw xam na li mu war a def ak li mu wa def mais genre xaj yooyu sax yu ni mel man j'espère que ci ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy naa waruñu ko fa def rawatina na nga xam ne noonu la def xale bi bu ñu la ko expliqué yow ci sa bopp sa yaram dafay daw donc nañu ko éviter ay xar aussi nga teg ko ay nit war koo di bi nga bàyyi koo xaj mhm. xam nga tam dafa xaw a daw yaram ah, waaw nañu def euh, li ñu war a def rek mais heureusement Marie-Louise euh, Sénégal am na loi quand même xaj bi la ñuy tëj wala borom xaj bi non <laughs> foog naa propriétaire bi ci boppam ah. moom la ñuy war a tëj parce que am na yenn xaj yoo xamante ne Pape Cheikh nekkul ay xaju domestique mhm. du pour kër mhm. ay pitbull du pour kër parce que xaj yoo xamante ne pour kër la sécurité ñun ñëpp suñu kër yi dañu doon am ay xaj ñu ñuy ñu ñuy aar dañu protéger ci sàtte ci ñoo xamante ne dañuy ay intrus ci kër gi mais mm-hmm. pitbull mooy xaj boo xamante ne du pour kër mm-hmm. je me rappelle am na période la cinq ans benn bonne boo xamante ne sacré cœur xaj bi da ko da ko carrément tànk bi et tout da ko yàqoon donc ce n'est pas une nouvelle chose boo xamante ne dafay door a xew mës na fi xew je pense que autorités yi ils n'ont qu'à prendre responsabilité pour mën a xam yan yan yan yan yan solution mesure yoo xam ne la ñuy parce que am na yenn xaj yoo xamante ne du pour kër pitbull c'est chien boo xamante ne pour sécurité la ay chain de chasse ak yooyu bokkul ak kër chien boo xamante ne ci kër lay nekk et euh, c'est drame boo xamante ne métti na ñëpp tey ñëpp yuuxu bañ ko déggee eh, xale la la dal. Eh, il a 15 ans il a xale la yàq na ah, un peu. en plus talibé la ay ay Pape Dogu Mal gis nga au delà de genre xaj yooyu ñu wax ay berger allemand ay pitbull nangam sangam mais xaj yi taxawaalu ci mbedd yi ñoo ëpp. te voilà les chiens euh, te xaj yooyu xam lu ci gën a doy waar mooy ñu ci baree baree bari wéeruñu. ça veut dire que buñ la màttee au delà de sax métit bi ngay amee douleur bi ngay amee. Mhm. jàngoro ji nekk ci ñoom am na nu muy demee ñu wàll leen ko. Mhm. te man buñ demee ba Sénégal ay 21e siècle ñuy wax ay xaji mbedd. Mhm. ça veut dire que réew mi même bu dee doxit mi ngi dox bàyyi fi au moment où dëkk yu bëri quand même ñu ngi toll ci euh, bëgg a tere euh, euh, je pense yenn ci xaj yeeg ni ñuy nekkee des chiens errants et tout ça daaw quartier général Euh, euh, waxtaane nañu xaj yi ren tamit ñu waxtaane waat xaj yi daaw problème bi ñu amoon mooy xaj errant yi nekk ci mbedd yi di di di di semer terreur mais bi itam euh, dafa dafa dafa waat ak problème mu domestique bi nekkoon Sacré Cœur te xaj bi gaañoon ko te budul woon ak mason yi mooy loolu quoi voilà ba pare am na benn commerce boo xamante ne dafa am xaj dafa am xaalis Pape Cheikh ñu ah. dañuy yar xaj ci ah. kër yi mm. xaj benn xaj cent cinquante mille ba un ah. xam nga loo xaalis amoon naa xaj bu riis nag sama kër xaj bu tubaabe nag xaj bu yambare soo ne ci défense bi laa xam ne. waaw ah. <laughs> maa ngi ci xaj. ah bu sonn. <laughs> non c'était une petite chienne. waay euh, <laughs> waaw. daal daal xaj daal moom moom dañoo jubawul sax boo xam naa Yacine comme lépp lu jëm ci wàllu kaaraange moo ñu ciy dimbali euh, dina ci def ab gëstu comme ça ñu gën a yaatal alerte bi euh, mais Oustaz. xaj moom ala kulli haal dafa xaw a doy waar. waaw dafa xa a doy na ko. parce que bëgguma blâmer aussi y a des gens qui aiment avoir des chiens chez eux oui. xam nga sallallahu alayhi la wax ne moom la ñuy doyee xaj. damaa naa fekk jërëjëf li nga xamante ni dañ koy yor pour mu lay gardel sa kër. Uh-huh. li nga xamante ni da koy yor par exemple pour mu lay gardel mm-hmm. sa champ. Mm-hmm. ak li nga xamante ni itam da nga koy yor ngir par exemple ñoo xamante ni ay euh, silmaxa lañu. Mm-hmm. dañuy am ay xaj yoo xamante daf leen di guider. donc ñett yooyu la wax ne moom la l'islam permettre pour nit ki mu koy yore li nga xam moo di. ay ay xaj mais tey jii ne junñu lu am solo ah waxuma amul de boo demee si pays occidentaux yi doo gis ay tubaab ñuy yar ay xër ak ay bëy comme seen ay kër comme ñun ñu koy defee cela veut dire que ne réew mu nekk ak say aada gis naa sànq comme dañuy topp actualité bi ma gisee affaire bi si réseaux sociaux yi may lire commentaire yi benn waay ne yow a nga loolu c'est un peu comique mais il a raison mm. yow mel ni man amoo sa loxo jotul sa gannaaw nga bëgg yar loo xamante ni yàpp lay dundee bu xiifee def musiba donc yooyu yëpp c'est bon à savoir nit ñi nga xamante ni ñoo si loolu aussi loolu moom moo gën a metti euh, soxna si wax na ko léegi euh, Marie Louise nga xam ne tey jii nii da ngay yor benn pitbull sa biir kër yow mën mënaloo ko dara tous rien bu yuuxoo sax nga am problème di semer le bordel ñu jéggal ma si terme bi si quartier bi kenn du nelaw kenn du nàngam après muy ëlbatu bu def dégâts yu mel noonu c'est dur donc yooyu état bi nga xamante ne moo responsabilité ñëpp sécurité nit ñi moom la nekk ñoom tamit nañ xool nu ñu yemale ku si am sañ-sañ ñu jox la ku si amul sañ-sañ ñu bàyyi ko fa mais jullit daal du jël xaj nii rek comme ça waaye ni ma ko waxee leen c'était une petite chienne kii euh, nangam sangam kërëb kërëb yooyu noonu nañ ko jël ñu teg ne wërsëg du suñu cosaan du suñu aada. te <laughs> dul ñett xam ni ñu ne euh, na ñu ne nañu proposé assemblée loi boo xamante ni dafay tere yenn xac yi. parce que ci dëkk yu mag yi par exemple États-Unis ak France paraît-il mm-hmm. euh, dañoo tere euh, yenn yenn yi. parce que dégg naa seen i mâchoire rek. Mm-hmm. ca taay ba muy toll rek. mooy mm-hmm. indi li tax ñu koy tere. ak li tax duñu ko tere ci dëkk yooyu nga xamante ni limite ñun africain <laughs> ci lépp rek dañ boo demee France par exemple boo demee États-Unis par exemple on prend toujours exemple ci dëkk yooyu donc segam dëkk yooyu ñoo koy tere waxatuma la ak ñun dafa dafa am ay catégories te yoo nga xamante ne actuellement ñi ngi de garde am chien de défense chien ñetti catégorie xaj yooyu xajaloog la ñetti non xale journaliste yi mën jaaxal te dañoo gis ni actuellement <laughs> dafa nekk la ñu def léegi déggal te dafa actuellement te ci sujet bu ñu dugg nga foog ñu log lañ ja <laughs> te loolu actuellement actuellement actuellement gis nañ mbiru xajo nekk à la mode dafa nekk à la mode actuellement gis ngeen xale yi ku ciy dox léegi dafa mel ni feeling la mm-hmm. nga ànd ak sa xaj oui mais nag pitbull daf ci bokk xaj yi nga xam ne race yi gën a danger. donc dafa nekk il faut effectivement impérativement. xaj yëpp a xaje. non dëgg la loolu dëgg la mais comme ni nga wax bokkul suñu culture. bokk c'est bokkul suñu culture rek mais bu ñu demee tamit ba réew mi di dox dañuy dox ànd ak ah. moom. Mhm. donc comme comme a nekk mais ah. yenn saa yi peut-être effet de mode bi dafay ñëw mhm. maintenant ñun euh, problème bi ñu am peut-être mooy mooy que dañuy topp ni jamono di doxee te duñu jël les mesures de précaution qu'il faut loolu mooy problème bi peut-être comme il l'a dit boo demee à l'étranger dañuy am ay xaj yu nga xamante ne bu ci nekk ak njëriñam mhm. bu ci nekk ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu ñun malheureusement peut-être loolu mooy suñu problème man su ma la waxee ni que sama pap dafa demoon engagé ñaari pitbull yu ñuul kuk andi leen ci kër ga ñun ñu nekk di nekkee panique di tëddeeg moom di yeewandoog moom jour bi mu ñëwee ubbi cage lapin yi di xar lapin benn par benn il a fallu ko moom ñu ko mu ñëw pour mun a calmer xaj yi ci la leen jëlee ci kër gi mhm. donc là on se retrouve avec quatre chiens à loolu mooy pitbull yi tàqalikoo ak ñun. Mhm. donc yooyu mooy nekk problème yi yenn saa yi pas parce que xaj baaxul wala nangam ku nekk ak li nga koy doyee oustaz la bien dit. Mhm. kii dina soxla ku garder këram kii soxla leneen ku nekk ak bëgg-bëggam. c' est important mhm. maintenant il faut juste que les mesures qu' faut mu suivre je pense que c' le plus important. je pense que mission Yacine Seye Diop la nar a doon euh, xamal ni depuis 1999 pitbull il est considéré Euh, sax di ko jënd ak di ko di ko jaay euh, mooy ah voilà c'est ça dafa xaj bu ñaaw la bon après euh, mu ngoog am nañu ko bëgg am nañu ko bëggut mais lii mu def tey àdduna yëpp dañu ko naqarlu te du Sénégal rek la ko def ci dëkk yu bëri boo fa demee on peut te raconter beaucoup de cas yoo xamante ni xaj bi di pitbull moo leen ko yóbbee donc dañ ci def gëstu n'est-ce pas Yacine pour sécurité wu doomu aadama yi. ce sera avec plaisir. comme mm. ni ma koy faral di waxee rek. c'est Euh, Pape Cheikh sécurité dafa nekk loo xam ne si réew boo mënti dem surtout dañuy faral di jël exemple si pays développé yi daanaka 60 à 70 pour cent si seen budget dañ koy jagle li nga xam ne mooy sécurité. Mhm. parce que bis bu jéeyee amee rek lépp loo tabaxoon day rës te da koy recommencer waat. Mhm. te wàllum sécurité bi nag au Sénégal war nañ ko renforcer bu baax parce que c'est pas normal xaj bu mel ni di traîner si mbedd bi ba faat ci li nga xam ne mooy benn taalibe donc quelque part am na benn manque de de vigilance. mu ngoog euh, euh, donc loolu moo nekkoon suñu entrée en matière euh, ñi fi am xaj nag classe Mamadou Ndoye Bane gi moom kenn mënulu ko dara moom moom moom moom Mamadou Ndoye Bane la nit mënulu dara te ay xajam ragaluñ ko te ku yeewu fajar ba gis Ndoye Bane war a daw ay xajam nag dawuñu daawuñu daayuñu daayuñu kon ci ngeen war a xam ni xaj daa bëri fit segam xaj yi dawuñu Mamadou Ndoye Bane kon xaj bëri na fit man loolu naqari na ma torop on a des ay xaj yu bari wax waaw <laughs> mu ngoog am na am na am na euh, leneen loo xamante ni itam euh, fan yii yëpp ñëpp a koy euh, naqarlu muy lakk yu bëri yi nga xame ni dañu ko seetlu ci ay bërëb yu bëri surtout quand da ngay jékki-jékki yeewu fajar ñu ne la biig marché sangam lakk na et que sapeur dañu amoon problème pour accéder ci bërëb bi pour mën a fay lakk gi Yacine. Pape Cheikh ma nuyu rek comme sànq jotuma nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatuhu di nuyu mbokk téléspectateur euh, télévision Futur Média euh, di nuyu aussi bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi ci réew mi mais di nuyu aussi sama collègue yi nga xam ne moom laa bokkal plateau bu yànj bi Pape Cheikh comme euh, ni nga ko waxee temps yi dafa am série d'incendie mais ça commencé wul tey rek soo xoolee tuuti ravage bi muy def moo ngi commencé en 2013 soo defee benn seetlu bu tuuti rek commencé di gën a lakk mais aussi concerné wul marché yi rek atelier yi euh, menuiserie yi parfois day am ay lakk-lakk yu bari mais aussi kër yi am na ay victimes yu bëree bëri entre 2017 ak li nga xamante ne mooy 2019 euh, parce que ba bërki dem rek ci benn région fii ci Sénégal à Kolda am na benn case boo xam ne lakk na fa ba yóbbu bakkanu nit donc Pape Cheikh na ma si def benn analyse bu ndaw rek mhm. def ci benn reportage buy retracé à peu près cas d'incendie yi nga xam ne jot na am Sénégal indi tuuti causes yi suñu paree mën ko débattre sur le plateau ak peut euh, ñi nga xam ne bokk naa ko plateau bi donc su fekkee ne élément bi pare na mën nañ ko dem seetaan yi dellu si sur le plateau. nag moo daal di lakk ba juróomi doomu ñàkk ci seen bakkan suñu sañoon ñu nekk ak ba ñuy am jëkkër ñi takk jabar ñu ñu gis suñuy sëtaat loolu lañ doon ñaan suñu waaye nag lii la yàlla dogal. lakk-lakk yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku cim réew mu mel ni lii lii day gën a bari loolee tax ab laaj daal di samp ana lan moo waral mbir mu ni mel. su fekkoon ne mesures ñu ngi ko doon jël nu mu waree ba nga xamante nii si biir au moins dina mën a am ay voies yoo xamante ne. bon accès dina fa am te lool yëpp bon li ko waral mooy comme li ngeen wax nii rek suivi moom moo dul am si gouvernement bi di jël. ay barak ñoo doon tàkk barak yoo xam ni dañ daara la ñetti daara ñoo fi lañ fi ñoo fi nekkoon waaw ñoo fi jafe na parce que xam nga fa ruqee gis nañu mbedd mi ni mu mel xam nga mbedd fii mbedd amatu fi sapeur yi nu ñu mën liggéeye fii yàlla rek a leen dimbali ak seen xarañ mais nga xoolu si li ñëpp war jàpp mooy dëkkin bi moo màgget moo wóoratul ginnaaw ay gëstu li nga xam ne moom moo di branchement yu jaarul yoon yi bokk na ci li nga xam ne moom mooy indi lakk yi de leneen itam bokk na ci li nga xam ne rek moom la ñuy jëfandikoo lu ci mel ni gaz ba ci sax li nga xam ne moom moo di sondeel ñu daal di ciy toftal yenn ci ay liquide yoo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo te itam loolee mën a taalam réew ku nekk ci ñun problème mu sécurité mu ngi commencé ci suñuy dëkkuwaay te wax dëgg yàlla kër gi ni mu ni ñu ko tabaxee mën na mën na euh, rendre difficile euh, ay yenn ay yenn action de sauvetage. marché HLM ba lakk googu jàllee ba noppi ñun ñi fi nekk commerçant yi ñoo débrouillé wu seen dimbali ñi lakkale woon defaraat place yi nga xam ne ñoo lakkoon ñu ne fi nii maire nii état kenn defu ci ñaar. lii lii doon lu doy waar ba tax ay saafara itam daal di ñëw ci wàllu wi li nga xam ne moom moo di détecteur de fumée. ñu bañ di bàyyi itam appareil yi di tàkk. ci li nga xam ne moom moo di mode veille. ñu ngi ciy ñaax commerçant yi pour ñu boole ko ci seen activité dañu jàpp ne ku xamoon assurance njariñam ak li mu la mën a li mu la mën a andil doo ko bañ xanaa li fi nekk rek mooy euh, bañ a am njëg gi wala ñàkk ko xam. ñu bañ di bàyyi tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di muumin yi ñuy nekk ñoom kese ndax yenn saay mën nañu sax di jëfandikoo yenn ci ay objet yoo xamante ni mën naa indi tàkk-tàkk ay gëstu du wéy askan wi daal di sonn ci wàll wi ndax lakk-lakk fu mu amee fu nekk rek muy jur ay doomu aadama yu ci ñàkk seen ay bakken waaye itam ay koppar yoo xamante ni rek dina nax saay lii lii baaxul benn yoon ci li nga xam ne moom moo di économie bu réew loolee tax askan wi di sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo jiite mim réew ñu daal di indi ay saafara ci mbir mu nu mel ndax voilà ñu ngi ñuy wax ni euh, mu ngi bëgg a yàgg euh, mais daanaka dafa mel ni lu doon phénomène wala lu bees fii Sénégal ndax li ñu koy dégg euh, mu ngi bëgg a bëri quand ay bërëb yu lakk ay marché yu lakk. pourtant nekkul lu bees sax mais man tey damay bëgg a dugg ci côté. laxisme bi. Mhm. xam nga bee passé euh, monsieur le maire moo ngi toog fi mu ne ma mu ne Sénégal dañoo ñeme fooye lu bëri. ak mhm. caaxaan. dëgg la euh, je parle sous le contrôle de oustaz xam nga si alxuraan am na fu yàlla naan uti leen xam-xam. Mhm. ba am na fu mu naan aussi. borom xam-xam yi ñoo ko gën a jege. Mhm. moi je prends juste l' exemple de bateau le Joola. Mhm. xam nga jour bi muy am dafa amoon na benn alerte bu am. Mhm. mais ñu négli négliger ko au plus haut niveau. ñu def ko kaf dëgg la. xam nga lu mel ni Titanic bi mu amee. tubaab yi dañoo def gëstu remonté ba xam ne en fait bi ñuy tabax Titanic bi. am na benn partie bu këriñ bi noonu nekk moo doon lakk benn côté bateau bi. loolu moo dem ba fragiliser ko xam nga soo demee ba trouver solution mën nañ am njort yàlla mën na ci def sutura foofu. Mhm. cest à teg na lépp si yoon. Mhm. xam nga Sénégal dañoo mën dañoo am benn frein socioculturel dama koy faral jox yàlla baax na. Mhm. wala dogalum yàlla la. fekk ne yàlla yàlla bay sa tool. am na waaw am na loo xam ne soo ko gëstoo ba xam ko. ba teg ko ci yoon yàlla mën na la suturaal accident suy amati dootul jaar ci bunt boobu. Ah. donc tey soo ñëwee si li nga xam ne mooy incendie yi am nga xam ne depuis 2013 autorités euh, publiques yi ñoo ngi promettre ne. war na mën a am solution mais lu simple la Pape Cheikh su ma ñëwee ci li nga xam ne mooy lakk-lakk yi am ci marché bi 80 pour cent lakk incendie yi am branchement fil yi maanaam ni ñuy branché fil yi ci marché bi lu jëm ci wàllum électricité moom moo teguwul ci yoon donc très souvent électrocution su amee mooy indi li nga xam ne mooy lakk-lakk bi pour man loolu yomb na régler parce que tey euh, responsabilité collectivité locale yi la ak li nga xam ne mooy préfecture yi nekk ci gox yi moment bi nga xam ne ñoo ngi tabax marché bi mm. ñu mën a assurer li nga xam ne mooy branchement correct en passant ci li nga xam ne mooy Senelec mm. mais bi ci des tamit damay faral di wax africain dafa war a bëgg lu baax pourquoi mm. tubaab yi di ñu gën a bëgg lu baax mm-hmm. soo demee ba war a tabax li nga xam ne mooy marché pourquoi doo respecter norme yi pourquoi pourtant loi baa ngi fi. marché sax sori na sax boo ko dee tabax. am néeg am néeg sax boo ci defaat appartement di soppi sa kër yaay. di ci def appartement ak yooyu préwaaral ay ak yooyu yëpp. yëpp nga def ko si bi si des mooy. gaaruwaale. Euh, euh, <laughs> bi si des mooy c'est des établissements recevant du public. Mm. donc il y va de la protection civile. Mm. du ministère de l'intérieur imprimerie boo ko ibbee def ci yëpp. def si yëpp ah. donc marché bi dafa am noo xam ne moom nga ko war a aménager mm-hmm. ñiy jaay jën seen place ah. ñi nga xamante ne dañuy jaay légumes seen place mm-hmm. ñi nga xamante ne dañuy jaay cuuraay nga xam ne yooyu c'est des éléments yoo xam ne souvent day am ànd à côté. dafa hmm. war a am nu ñu aménager marché yi. dafa am aussi ay normes de sécurité yu ñu war a respecter si li nga xam ne mooy dimension entrée marché yi. ba nga xam ne hmm. bis bu jéeyee amee ndax le risque zéro n'existe pas. Hmm. sapor pompier yi dinañ mën a intervenir. Ah, ah. mais aussi lu mel ne France soo demee si li nga xam ne mooy kër yi reportage bi wane na ko am na ay cas de décès yu atroces. yoo xam ne nit ki moo ngi ci biir këram du jour. lakk bi am ba lakk leen ba mu jeex tàkk. Mhm. loolu pour man war na mën a jeex Sénégal parce que depuis 2015 soo demee dëkk bu mel ni France li nga xam ne mooy détecteur de fumée. Mhm. dafa nekk lu obligatoire ci kër yi. Mhm. Pape Cheikh mënu ma comprendre nit jël un milliard tabax ko ci immeuble ah. déclenché dama doon cuuraay rek. c'est ça li li nga xamante ne euh, mënoo jël un milliard nga tabax benn immeuble. te te te kii bi nu mu tuddati te appart te appartement yi def si li nga xam ne mooy détecteur de fumée. Mhm. détecteur de fumée euh, cherul. Mhm. di euros ba 19 euros mooy lan si si français. nga ne bëriwul 5000 5000 6000 6500. donc yow nga tabax immeuble bu yàññ. defoo ci détecteur de fumée parce que détecteur de fumée bi dafa am foo ko war a teg aussi si biir kër gi mhm. doo ko teg si waañ. waañ c'est normal muy am fumée. da ngay dem ba teg ko ci li nga xam ne mooy wetu léeg bi. cas bi am il y a deux ans xaw ma l'année dernière à Kédougou chef d'agence bi dem mission njabootam yëpp yem ci ci biir salle de bain bi lañ leen fekk. non ñoom ñëpp. su fekkoon ne kër gi amoon na détecteur de fumée dinañ yëg à temps peut-être. dëgg la. que incendie moo ngi bëgg a am. mais li si des mooy am na loo xam ne soo koy wax sénégalais yi souvent ñu naan loolu ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. mais si sew sew yooyu nga xam ne mooy lu nit tàmm. Mm-hmm. fa la jéeya di amee parce que ñun dañoo tàmm ça n'arrive qu'aux autres. qu'aux ak garaaw loolu ci loolu lañ ñu yar masla bu bëri ça n'arrive qu'aux autres et tout ça baaxul lu dal waaye rek mën na laa dal mën na la dal parce que lu mel ni euh, ànd mhm. nga teg ko ci wetu li nga xam ne mooy rideau mhm. lakk na kër ba rey ay nit dëgg la de li nga xam ne mooy xale nga bàyyi ko parce que xale dafa am période boo xam ñu ñëpp jaar nañ ci man mhm. je me comme yow comme keneen dafa am période boo xam ne safara dalay attiré sa parent suñu nekkulee si kër gi di nga dem foyee safara tu vois tubaab danaan xale kenn du ko bàyyi moom kese. bi si des tamit dañoo tàmm ñun du ñu respecter norme te pourtant lépp dafa war tegu ci dëgg. Ah, ak ci ah, yoon ah, li nga xam ne mooy prise électrique yi. Mhm. dafa bëri yu chinois. Mhm. très souvent da ngay toog ba ci yàgg muy xeeñ. soo deful attention mën lakk na ay kër. te pourtant am na ay prises électriques yoo xam ne c' est des prises électriques CE qui respectent les normes européennes. nga xam ne bis boo ko defee sa kër yàlla mën na la suturaal ba du àgg foofu. Mhm. tey benn interpellation lay def parce que mën nañ dugg y aura des émissions sur la sécurité mhm. ñuy dugg cas par cas mhm. mais na ma gis ne rek euh, mhm. fi sooxe bi amee mooy la responsabilité rôle de contrôle de veille de nos autorités publiques des na bu baax a baax damay interpeller li nga xam ne mooy protection civile di interpeller maire yi di interpeller préfecture yi mais aussi di interpeller les sénégalais en tant que tel parce que li may faral di wax suñu développement ak li ñuy jëmale kanam ci ñun citoyen la war a commencer. Mhm. parce que l'État n'a pas tous les moyens. tey marché yi nga xam ne kenn tabaxagu ko euh, boobu mën nañ ci jël ay mesures dès le début. Mhm. mais marché yi nga xam ne tabax nañ ko ba pare mu nekk ay marché yu màgget. Mhm. tey am na ay collectif pourtant day am ay daayira dans les marchés. ñuy cotiser di natt di jënd ay drap di ngénte cotisation boobu soo ko defoon jëmale ko ci kaaraange marché bi wala lu defaat li nga xam ne. mooy électrification bi. tey 9 milliards yi ñuy wax ne marché Ziguinchor perdre na ko. xëy na tey loolu mënoon na prévenir contre loolu. li si des mooy assurance ngi ci dëkk bi. mais assurance pas chère du assuré wul loo xamante ne c'est assuré. dañu waxante dëgg. tey du mën a ñëw assuré sa cantine sachant que xool na marché bi. système d'électrification bi respecté wul les normes su boobaa doom assurance donc li nga liggéey yëpp sur 10 ans xëy benn bis nga ñàkk ko pour man euh, euh, ci njaxlaf ak ci ci dëggu ci ci vigilance mm. la ñu war a teg yëpp pour que désormais yii mm-hmm. nii mm-hmm. mën a bañatee am fii ci Sénégal wala suy am mu nekk lu raara voilà euh, xoddeeku moom sax ci jaamu yàlla la bokk mm-hmm. waaw xoddeeku si jaamu yàlla la bokk mais fi mu point de chute am bii man foofu lay tàmbalee comme ni mu wax ne marché yi de am yoo xam ne dañu yor ay di laaj ay cotisation war a ngénte war a daayira wala nangam nañuy ñaax nit yi aussi si marché yi ñuy génnee azaka c'est très important ndax yàlla dafa wax si alquran fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wa'lamu anna allaha shadidul iqab yàlla nee mooy tëndaku fitna boo xamante bu tàkkee du yem sa ña nga ñoom ñoo ko tàmbali mais fa muy lawee doo ko xam lu tax ma wax loolu parce que tey jii ñu bëri il faut ñu wax ko dañuy jël asaka di ko négliger. Mhm. et c' est pas normal. te tey jii nii ni ñuy daaxee nit ñi ñuy cotiser ngir ngénte ngir dëj ngir nàngam dañ koy defe noonu ngir sauver seen bopp ak marché yi ak yu mhm. demee noonu xam nga lu tax. Mhm. parce que am na fa ñoo xam ne wala benn waay boo xam ne boo ko waxee waxu asaka da lay tënk. maanaam asaka génne ko farataaluñu ko mesure de prévention la. si amul ma dem moo gën a garaaw extincteur. fuuf parce que fu ribaa nekk yàlla nee na dama koy lakk. yàlla nee na fu ribaa nekk dama koy lakk def ko dóom te loolu dafa jar a bàyyi xel yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqaat da yàlla wax si alquran yàlla nee ne riba fu mu am dama koy taal ba mu jeex takk fépp foo xamante ne dañ fa génne asaka toujours day gën a baax day gën a sell waaye itam day gën a euh, nekk loo xamante ni lu barkeel lay doon te souvent boo demee si marché yi wala yenn commerçant yi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy négliger yow jëlal ñu ne la boo amee juróomi géléem si ngay door a génn benn pour asaka boo amee fanweeri nag si ngay door a génn benn pour azaka boo amee ñeent fukki nag yoo xamante ni pour sàmm la yu am at nga génn benn boo xamante ni am na at mais loolu yombul ñu ne la 1000 francs boo denc at ba atal nga génn si 25 francs mm. mille francs boo si génnee cinq lu mu lay wàññi. mais wàññiw la dara mais tey jii nii dañuy préféré daf ko si ay xumbaax ma te yàlla kilifa la goo xamante ni am na fulla ju day ni boo deful li mu wax moom li mu wax dina ko def te boobaa doo si man dara kon li ñuy ñaax nit ñi rek ñuy farataal azaka mhm. ndax azaka dafa bokk si juróomi ponki lislaam mhm. boo waxee ndeg léeg-léeg ñu ne yàlla soxorul maa ngi saraxe maa ngi ñi ngi azaka lañ wax mhm. ñi mën a génn azaka na ñuy génn azaka noo yàlla day dina dina nasaxal alal ji ñi war wax itam nekk si marché yi bu ñu waxul bu waa ji yàlla di taal cantine ko bañ a génne azaka cantine yëpp lay boole taalaale ah. ndax mbañ a moytandiku fitna boo xamante ni mooy li nga wax mhm. xoddaku balaa ngay lakkale kon ñu si lakkale ñu ngi leen di masawu mais nañuy bàyyi aspect boobu xel bu baax très intéressant mhm. bi am na solo mhm. mais très souvent damay wax oustaz soo xoolee pays développé yi ñu ci bëri xamuñu azaka xam nga li nga wax lu am solo la nit ñi ak képp kuy jullit war na ci bàyyi xel. ci mm-hmm. sa alal nga ciy génne. bul fàtte ni maître ngi maître te war na ñëw. bu yooyu yëpp leen ko fàtte. mais on parle de sécurité ñun bi ñuy nekk école pour mën a tegu ci sécurité bi. parce que vigilance ak bay mm. dañ naan da ngeen di jël affaire yàlla. Mm. ñu jéggal ma ci kàddu bi. ngeen def nii pour mën a xam mm. nan ngeen di étudier sécurité bi teg ko ci yoon ak logique. Mm-hmm. may interpeller rek ñuy éviter aussi di yónni xale yi très souvent. dañuy dañuy dañuy dañuy sàggan. tegal yàlla nële. non non waxin la je waxin la maanaam yàlla baax na mooy mooy comme ñun li ñuy faral di waxee expression yàlla baax na dañ naan da ngay jël expression boobu. Mhm. nga tege ko nële parce que yàlla yàlla bay sa tool. foofu laa bëgg a waxee. ñuy éviter nag di di yónni xale yi. Mhm. si waañ yi. Mhm. di yónni xale yi si fëy parce que bëri na incendie yu bëri yu am Pape Cheikh mhm. yónni xale si waañ ne ko mhm. taalal gaz indi na ko ci ay kër yu bëree mhm. bëri voilà mu ngoog en tout cas am na solo c'est vrai que euh, sujet yëpp du ñu am temps pour détailler ko mais bu ci nekk important na xeetu important boo xamante ni bu ne jar na émission ak débat euh, pour gën a sensibiliser te ñaax ndax ñun loolu lañ fi nekkee euh, ci télévision Futur Média merci beaucoup Yacine Sey Diop avant de retrouver maître Ousmane Sey invité euh, bu quartier général pour waxtaan ak moom ci ponk yu bëri au moment ñuy waxtaanee euh, li nga xam ni euh, moo lëmbee réew mi tey ak xaj yooyu indi ay jafe-jafe di ay pitbull ñu ngi may xamal ni pikin euh, sous-préfet bu daggu daan dafa ordonné euh, la mise à mort de cinq pitbull pour ñu rey leen euh, service département d'hygiène hygiène ak élevage def na loolu sànq bi 22 heures jotee donc ce qui veut dire que bi ñu commencé émission bi dem nañu pour faat cinq pitbull foofu ca daggu daan ñi nga xamante ni ñoom ñoom moom xaj yooyu rey ñoom déféré nañu leen au parquet cet après-midi paraît-il Marie-Louise Euh, ils ont été donc déférés cet après-midi euh, pour coups et blessures volontaires avec incapacité temporaire de travail euh, c'est des termes assez juridiques mais il paraît que loolu moo am tey ak ñi moom xaj parquet Pikine comme ni nga doon la sànq yaa ngi laajte ndax euh, xaj bi la ñuy jàpp wala euh, nit ki nga xamante ne moo ko moom xam nga mm-hmm. xaj moom kenn du ko dugal ci ay kaso naan ñu koy jàpp dafa mel ni seko bu ñu waxoon ne rek complicité lan <laughs> <laughs> trafic ñu jàpp ko voilà ñu jàpp ko moom loolu am na ci yeneen dëkk yi mais fii moom peut-être que amu fi mm-hmm. mais nit ñi nga xamante ne ñoom moom xaj boobu te amuñu autorisation ñu xam nga xaj ay pitbull du ñoo xamante da nga koy yar noonu da ngay am mm-hmm. autorisation pour nga yore ko sa wala nga yore ko foo xamante ne pour utilisation bi nga koy amee donc euh, daan bi ki nga mm. xamante ne moom moo ko moom moom moom la ñu war a daan euh, mm-hmm. su nekkee tëj dëj parce que ku blessure xale bi gaañu na loolu c' est clair que dina am ay mois de prison ah. voilà mois de mm-hmm. prison à l' improvise nga ma ko posé. mënuma mm-hmm. tëb tëb joxe ay peine et tout peut être maître su ñëwee. mais maître ngi fi dina am texte yi dina ko am en tête et tout nañ ko laaj maître très rapidement mu nekk première question n' est ce pas vas-y Mohamed. Ah. oui il a été grièvement blessé mais il y a eu des gens qui ont été tués par des pitbulls. waaw loolu moom loolu am na effectivement xëy na damaa xaw a bar moo tax wax ji du leer avec une ITT de combien de jours. Uh-huh. loolu ay nit am nañ ci ay peine ferme mm-hmm. waaw d' abord dama leen di dama leen di nuyu. Mm-hmm. di leen di yi di sargal askan ci weeru koor bi ñu nekk. Euh, di baal àq ñëpp di ñaan ñëpp baal ma àq. Mm-hmm. Euh, di nuyu aussi borom kër gi. parce que nag waxtaan na neex borom kër. Euh, mais nag sa rek dafa nekk sama xarit aussi muy muy Youssou di aussi nit ku baax donc mënumaa ñëw fii. Mhm. ñooñu tamit ci émission bu rëy bi da nga xam ne mooy seen émission ci quartier général. Mhm. ca nuyuwuma ko sargaluma ko mhm. parce que sama xarit la voilà. Euh, voilà donc euh, euh, maître merci en tout cas ci ni nga ñu nangulee nekk invité quartier général tribunu Sénégal yëpp la laata ngay ñëw defe naa dégg nga li ñuy waxtaanee depuis sànq lu jëm ci wàllu yoon ak xaj yi ñuy dégg ni ñu ngi indil jafe-jafe askan wi am na lu ñu ci jot a dégg lan nga ñu ñuy nga ñuy dollil ci loolu pour précision surtout ci wàllu yoon. waaw parce que Sénégal dafa bëri loo xam ne euh, dafay nekk loo mun yoo xam ne mun na lor nit ëllëg. duñ ci mhm. jóg lu dul bu loolu amee. maanaam li ñuy wax prévention moo amul. Mhm. am na façon nga oto yi daw fii ay mhm. affaire u car rapide mais ay danger lañ c'est des dangers publics. la am na ay euh, nit ñi nu ñuy def ci koñ yi di fa di fa di fa def ay tànt di fa yeew ay xar di fa yeew ay ay ay ay ay euh, ay fas ak yooyu mais loolu c'est pas possible mënul nekk ci dëkk bu mel ni Sénégal. Mhm. Euh, noonu la xaj yi nekke di wër ñu leen di bàyyi ñuy wër nekk ay danger ay danger pour pour nit ñi. donc je crois que Sénégal ñaar la manqué. ma ak contrôle. Mhm. maa ngi doon waxtaan ak sama benn xarit démb ma ne ko mais ñun li ñuy lekk la. Mhm. parce que tey dama gis ne bu ñu defee ay centre commercial nit ñi di nit ñi di revendiquer mais franchement def marché boo xam ne c'est ouvert bu tawee ñu boole li ñuy lekk ak taw beeg euh, ban beeg lépp je crois que loolu danger la bu njëkk ba dafa amoon service d'hygiène fu nekk muy dem mhm. di saytu nit ñi dañuy lekk di saytu dëkkuwaay yi mhm. tey am na ay kër yoo xam ne ay foos fa nekk da ngay xëy suba rek foos yi wàcc ci nekk ci di di di mel ne mooy la ay taw mhm. mais mais kenn du ko yi amul amuñ culture boo xam ne dañuy jógandoor seen bopp. Mhm. pour daal di aar seen bopp. Mhm. ñoom toujours loo wax rek ñu ne président wala état bi. dëgg la bon yooyu yëpp ay problème la. Mhm. xaj nag bu demee ba matt nit ba di ko rey. je crois que loolu. franchement nit ñi war nañ jóg. ki ko moom mooy responsable. suñ ko jàppee dafay mel ne moom moo matte. moo rey. noonu lañ koy attee. dëgg la bon peine yi nag bon ay délit la na dem mois ba cinq ans. yow de ku la am avocat jël ndax li nga fi lijjanti ci ay dossier defe naa bëri na euh, lan ngay xaar tey ci quartier général bi maître. ah man kay xanaa yéenay xaar ci man dala man quartier général bi xam nga yéen da ngeen di wax rek may tontu. jéem maa ngi doon wax ak sama xarit Daouda Mine journaliste ba léegi ma ne ko man boo défendre naa opposition défendre naa presse. dëgg la di ko wax ne ko ñoom euh, Babacar Touré bi muy soog a def euh, sud communication. Mhm. bi mi ma rendalee ci kawam. Mhm. boobu sax xale avocat la mais man la wóolu woon man maa ko défendre. Mhm. ne ko défendre naa fi Mame Less Dia. eewe eh fi Abdou Latif Coulibaly. eewe eh Talla Sylla bañ ko dóoree ay marto maa ko mais ñoom ñëpp a <laughs> ah, ah, ah, laaj laaj leen. <laughs> <laughs> laaj leen néew ma presque en tout cas daal. Uh-huh. man liñ may laaj mooy. Mm-hmm. en tant que avocat. waxuma la ne dinaa la gañaloo projet mm-hmm. mais sama lépp loo xam ne mën naa ko. Mm-hmm. Ah, ci ci ci ci pexe. Uh-huh. ak ci ci ci ci ci ci droit. Uh-huh. bu fekkee may sa avocat ca loolu lañu ñu suñu règle wax. naa ko ci def ba nga xam ne mooy li ñu wax diligence. lépp loo xam lépp loo mun. buñ la jëlee comme avocat na ko def pour sa pour sa dégg naa tamit euh, journaliste yi ñoom Chérif Dia Mamadou Mohamed Ndiaye gars yi naan euh, euh, li nga nekk avocat moo tax nga nekk politicien bu rusé yore ji koy njomboor. <laughs> ah avocat politicien nag tey day am na benn réunion politique bu ma demoon. ma leen. Hmm. ngeen xaw a génne ruse ci politique. Hmm. politique boo koy def da ngay nekk républicain. Mhm. sincère di ko teg ci yoon. Mhm. li nga xam ne moom moo war a nekk sa préoccupation. Mhm. mooy jëmale réew mi kanam. mais amul naxaate man daal vraiment di politique di nax sa morom ak yooyu daal man. vraiment que ruse nag mun nga ko ute feneen. waaw mun nga ko mais bu ko jëmale ci nax nit nag. d'accord bon ñu ngi lay xaar euh, bu ca kanamee tuuti nga fekk suñu ci plateau bi merci encore d'avoir accepté invitation bi euh, ci quartier général euh, maître bokkuloon ci avocat yi Cheikh Béthio yi waaw waaw avocat Cheikh sama papa Thione mhm. yu bëri ah. yu bëree bëri kay la jël Marie-Louise mi nga xamante ni tribunal lay xëy di fa gontu. <laughs> non mais boo xëyee kay da ngay dégg turam rek ci journaux yi. ci réseaux sociaux yi moom turam moom. c'est vrai que am nit yoo xamante ni tout le temps da ngay dégg seen tour moom mhm. maître Ousmane Seydi ci même boo xamul que c'est des cas ne yi bokk nañ ci dossier yu gën a mag mhm. parce que gis nga liggéeyu avocat dafa nekk loo xamante ne dafa war a nekk sérieux mhm. nit ñi suñu xamee ak sérieux dañuy wóolu jox la seen dossier parce que layal nit dafa métti nit ki day mel ni yow àddunaam yëpp la la jox il en va de sa liberté mhm. de sa crédibilité mhm. et de son honneur mhm. donc soo yëkkati sa dossier jox ko ni da koy jox ko xamante ne doy na la leer na la ni yow dossier bi dina ko topp ba keroog du ko négligé daal Pape Cheikh parce que bëri na ay avocat bëri na ay avocat yu sérieux samay xarit lañ am na ñoo xamante ne voilà mooy loolu mais moom bokk na ci dossier yu bëri yoo xamante ne fii Sénégal lim nañ ko ci je pense que loolu euh, euh, mën-mënam la ak compétence am la ak voilà wóolu bi nga xamante ne ñii wóolu nañ ko d'accord voilà intéressant en tout cas bu yegsee dinañu waxtaan ak moom et puis il sera avec euh, Daouda journaliste euh, fii ci euh, groupe Futur Média mais en même temps moo jiite site internet bi di www.igfm.sn xalimaam nag du laal suuf ci wàllu yoon moom Daouda Mine comme Marie-Louise Ndiaye il sera avec nous ak ka xam ne moo di maître Ousmane Seye mais d'abord dama bëggoon ñu jàppale téléspectateurs yi nag ci seen suukaru koor yi nga xam ne ni boobu ba tey ñu ngi leen koy séddale enveloppe bu toll ci cinquante mille kuñ ko may nga jël ak fi weer toll Euh, bu la neexee itam nga tànn leneen lu dul xaalis bokk na ci euh, yii ñu tege na le euh, ca côté Sophie muy téléviseur mixeur micro-ondes yéen yéenay tànn bu leen neex ñu may leen ko mën nañ ci teg nag biee màkk biee bi xaw ci kan la nar a mais en tout cas à tout moment mën ngeen woote ci benn ci numéro téléphone yi nga xam ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 tegaatal nañ leen ci yeneen de téléphone euh, yoo xamante ni mën ngeen cee woote muy 88 628 72 86 wala 88 628 99 80 bu fekkee am na ku nekk ci euh, téléphone bi ñu jël ko léegi nii balaa ñuy xuus euh, ci yeneen reportage yoo xam ni préparé préparé nañu leen ko tey damay defanteeg Adja Mati reportage am intéressant na sax mais dama koy kii. yooyu rek chef de bande yi di def waaw sucré xaw ma am na nappaate daal am na lu ma ko bëgg def xaw ma nu mu tudd moo yooyu ngeen di def RFM bu ngeen amee ku bees ku ñëw rek di toroxal di toroxal ñu bees ñi bizutage quoi bizutage voilà ah. am na sax lu gën a garaaw bizutage mais Baye tey ñëw ma pour reportage dama ñëw rek pour wéttali mais da nga am reportage boo xamante ne ma ci tey du ma ko jàll tey du ma ko jàllale <laughs> tey damay téye sa yëf tey dama ñëw rek pour wéttali la mais dama koy téye maa gisoo maa ngi bisu suñu honnêteté <laughs> yi wax nga dëgg. non déedéet coroy xew moom oustaz Modou Ndiaye moom tamit. yaa ngi Modou Ndiaye xanaa gisoo ñett ñële. xanaa gisoo leen Modou Mbaye Garmi. <laughs> Serigne Bamba xam na ni dama ko romb foog ni Garmi toog. ma tiit di jonkan woo kii mag ko kii kan la ndeke du Garmi waa <laughs> kii du Ndiaye ah. <laughs> <laughs> donc Ndiaye la nañu nañu jël nañu jël euh, euh, téléphone bi euh, léegi nii balaa ma leen di may benn selfie bërki dem Mami Diop la woon ak Père Boukhar le lendemain man la woon ak Cheikhou Sarifou démb kan la woon defe naa Dieynaba Seydou Ba ak Aba No Stress Aba moo jël piisu Dieynaba def ci dàll waaye tey Adja Mati Carter moo otesu ak bijou si jeex <laughs> allo. kooku. man la jatu. eh ban jatu bu man la de. ça va. ça va et toi. bëgg. benn carte nga yor koy votel yow. jaajëf <laughs> jatu nga di foo dëkk. waaw. Pape Cheikh nga nit ñi di wax nga leen di maa lay waaxu doom ndey baay. waaxuma amul problème yow laa déglu waaxu waxal. man xam naa li lay tiitale. waaye man lama may mu yóbbu ngewel. <laughs> sant yàlla rek sant yàlla bu baax a jërëjëf jërëjëf Jatu. jërëjëf Jatu. di jërëjëf Jatu. di kontaan ci quartier général bi. ñàkk cee kontaan wóor na nag ci laaj bi. ah loolu lu ma ko laajoon dañuy fàtte ay mag lañu léegi. waaw ay mag ngeen. wallaay. waaw la wax lan la wax ci Sarr mais Sarr mooy bëccëgu weeru koor. yàlla na gudd fan. <laughs> neexul a bokk ci ma jatu ah, xoola désormais ah. uyu def naa la groupe toj. léegi dama lay obligé chaque quartier général wooteel jatu. waxuma waxu charme ay bëccëgu weeru koor. <laughs> jatu foo dëkk si Yoff. déet na leer rek jatu foo dëkk fan si ndenaat kër kan. jatu. Ah? jatu kër ndenaat ma rek non may ma jatu jatu xam nga lu ma bëgg. jatu xam nga lu ma jatu xam nga lu bëgg. kii sama noonu la de jatu. jatu léegi dama bëgg yow danga fi bàyyi sa numéro de téléphone saa yu ma gontoo yow laay njëkk a woo. nga bokk ci émission bi. damaa bëgg bokk ci émission bu ma ñëwul toog sax bu toog si. ñi fi nga ñëpp sax xajuñu fi. waaw toog bi day metti doo toog. waaye dinañ la woo. <laughs> sëñ Oustaz ñoo bokk man eh wax de. jatu jatu jatu foo dëkk si ma du ma la ah, eh, eh, man dëkk na leer juróom-ñaari quartier la ah. Eh, bu leeral jàkku ku moom xar bi rek. jaay yoof juróom-ñaari quartier la moom ndenaat laa dëkk man da ndëngaañ laa dëkk. am na tóngoor am na ndenaat am na daagudaan am na ndëngaañ am na mbengeen am na ngapparu am na laayeen. jat man ndëngaañ laa dëkk yow ndenaat nga dëkk. jatu da ngaa ba ñu indil àdduna yow si koor lañ ne. ah non je panique yow tiit nga ah. non elle peut pas elle peut pas me faire paniquer du tout je suis clean. sama loxo sa kaw. blanc comme day jàkkay mm, ndëngaan bi. waaw min na ko. jàkkay kii bi denaat bi. waaw. chaque jour ñu daje. jàkka quand même. waaw comme jàkka comme jàkka la wax rek sant yàlla. jàkka quand même yàlla baax na. je suis fier de toi. non sant yàlla comme jàkka la. non bul gedd toog non gedd du ma xam nga lu la. <laughs> waaw oustaz lan nga ni oustaz jàkka maa eh, ma <laughs> eh, <laughs> bu ma xëcc yaa ngi lox ba eh, gàttu oustaz may naa la cinquante mille <laughs> ah yow itam gàttu mi est-ce que dëkkul kër ñoom kii sëru Mass la leer na ma ne Jatu Ndiaye la tudd <laughs> Jatu Jatu noo sant Jatu weer dina dem <laughs> allez jëlal leen ma numéro téléphone nu Jatu ah? Ndiaye euh, comme ça ñu livrer ko ah, cinquante Jatu on va t'appeler demain euh, bu ko defee euh, nga am rubrique quoi rubrique woote ngi nii wala ñaari comment si mu dëkk noonu wallaay at ngi nii Assane <laughs> waxagul dara fi mu toll nii dañ lay tëj waxagul dara yow bu doon tribunal dañ lay tëj. bu ma xamaloon caaf xam nga tëj ah bi léegi xam nga wax ji lan la ah, ah? non non ma tàggoo damay dem cosaan soo bëggee ma gunge la non non festival salaam mi ngi xaar maa ngi may envoyé message bàyyil ma dem cosaan doo dem doo dem yaakaar naa moo xajatoo fi waa ah? sekk xajatoo kaay ma gunge la bon àggali leen ma gunge ko ñu dem ma gunge la kaay ma gunge la kaay kaay gunge la jógal yaay sama xarit kaay ma gunge la kaay ma yi comme d'habitude maa leen di nuyu di leen ziar inchallah di leen jox dig daje ëllëg tàggool rek 11 10 heures 30 midi man Seyda Fat Bintou Oustaz Mor Thiam uh-huh. di wax na fii no du dem Mame Cheikh moo fi jaar Tidiane Couture dëkk Yoff mi may sol carte générale moo koy ñaw ndax tekkil micro bi gaaw. non non ni problème numéro maam Cheikh Thioy ñaata la gàcce. waaw jamais nee naa la man dama weex tàll macha allah je touche du bois. xanaa sosal de. waaye kii manuma waxal. numéro bi numéro bi. numéro maam Cheikh ñaata la. <laughs> bàyyi ma génn numéro bi. waaw maa <laughs> c'est pas grave c'est naturel on est entre nous. affaire de la. Ah le numéro en tête. 78. <laughs> Euh, numéro maam Cheikh Thioy. Hmm. pour bu ngeen bëggee ci yére bi. waaw bi ga mu ngi jóge ci. maman Raki mais ñaw bi 78 la. 467. 81. Euh, 72. maam Cheikh Thioy weekend couture. yow waaw kon bu suba ak jox carte jox ko téléphone. démar tëggal nañ ko yaa jàngaani woon ni foofa say téere <laughs> voilà. <laughs> mu ngoog merci Assane euh, suba di ngeen àndandoo ak moom en direct ci euh, télévision Futur Média ñu jël beneen téléspectateur comme ça ñu jox ko euh, ci suukaru koor yi ñuy séddale laataa ñuy jàll ci beneen sujet Coro Mbar a ngi fi Adjamati Carter ak Soraya sama doom tey baptême de feu pour moom puisque mu ngi doog a tàmbali quartier général yi ñu leen di woon bu leen neexee ngeen tànn ñu may leen ci benn téléviseur micro-ondes mixeur yëpp a ngi fi pour yéen ñu xool beneen téléspectateur allo allo jatu moom rakk Mass Ndiaye la moom c'est alo alo allo allo ayca gaaw leen 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone euh, yi affiché wu ci euh, suufu écran bi alo alo alo Bathia kookal la man la Ndeye Fatou Gueye Ndeye Fatou Gueye na nga def moo taxit jël naa la Gueye noo def mbaa dëkkoo ko ñu Mamadou Mohamed Ndiaye bëgg la rek topp la foo dem ma topp la fa. bëgg bëgg nga ku baax. bëgg TFM. yaa yey. bëgg borom télé bëgg yéen ñëpp. yaa yey. yéen de xanaa su la mayee kasitu borom télé bi eh, dootoo laal cinquante mille yi. waaw bëgg naa kasitu borom télé bi nag moom bëgg naa ma may la bandam rek. waaw waaye nag bëgg naa télé bi de. <laughs> télé bi. nga bëgg. waaw télé bi. ayca kon euh, quartier général ak Jumia. may nañ la téléviseur bi. tegal naa la ci album bu mujj euh, euh, génn ak Youssou Ndour tudd. jërëjëf euh, Baye bul bul ñu jël sa numéro téléphone. mën la livrer télé bi loo bëggoon wax ci amoo amoo loo wax comme jatu li mu wax amoo yoo ñu wax. <laughs> c'est dommage kooku dem na mais bon nañ ko jël ci ginnaaw comme ça euh, ñu mën ko livrer télé bi euh, nu mu gënee euh, gaaw bu amee beneen téléspectateur itam ñu jël ko ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi juste vous rappeler que ñu ngi àndandoo ak Ecobank am na yu bëri yoo xamante ne jagleel na ko ay clients mën ngeen cee profité surtout ci bërëb yi ñu tuddee ay points express yu Ecobank. da lay delloo li nga xamante ne mooy sa njëgu ndogu Ecobank loolu la jagleel ay clients dem ren ci weeru koor bi bari li nga xamante nga xam da ko jagleel ay client am delloo sa njëgu buru boo demee ci point express yu Ecobank mm. Ecobank aussi day jagleel ñi nga xamante lu toll ak ñetti client chaque jour par tirage ñu am possibilité gagner vingt cinq waaye bu ñu demee ci ñi nga xamante ñooy partenaire Ecobank yi aussi ñu ci mel ni hypermarché exclusif Sakanal Grain d'Or wala Falcol am nañ possibilité bu ñu fayee ak seen carte Ecobank ñu del rembourser leen am ngeen ko ak suñu ay partenaires euh, du Ecobank kese euh, je rappelle que Sobowa ci période bi nga xamante ni weer la bu am solo euh, dafa jël butéelu boisson yi wàññi ko gën ko taaral mais njëkk yi gën a accessible pour seen ay ndogu yu neex. plus chic moins cher ba pare neex a consommer pas cher Sobowa ñu indi ay bouteilles boisson yu bees tàq neex a téye neex a yóbbu fépp ci koor gi bu la ndogu naree fekk ci mbedd mi sax du la sonnal benn yoon donc da sa wala sa poche sax xaj na fa ko bu baax jël euh, coca coca zéro sprite euh, jëlee ko ci 300 yóbbu ko 250 francs CFA euh, gazelle pomme ananas ak limonade ñoom aussi actuellement ñi ngi jar 200 francs CFA Vimto léegi 300 rek nga am ko te ñi nga xamante ne bëgg nañu am énergie ci journée bi seen boisson énergisante XXL actuellement jaratul 500 400 francs CFA kese kese lay jar donc ngeen mun a ndogu xëdd digérer bu baax ak ay boissons su boobaa. mu ngoog donc loolu am na solo Oustaz Assane dafa conjuguer verbe partir au président au présent de l'indicatif tout de suite on le retrouve demain je le rappelle encore et puis am na ay plateau yu am solo yoo xamante ni euh, ñu ngi leen koy euh, préparer ci prélude euh, li nga xamee ni moo di festival Salam 2019 sànq ba tey ñu ngi jot ay message ay nit yu laajte kii toog ndax Garmi la gëj nañ ko dégg gëj koo gis mhm. Siste Maria bu set TV mu ngi may laaj léegi ndax Garmi dafa ñëwaat Johnson Mbeng itam mu ngi laajte loolu am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi koy laajte ci internet bi rakku garmi la euh, di euh, Ndiaye na nga def. Euh, jërëjëf Pape Cheikh ah. xanaa di sant Mawlana Tabaraka moom mi ñu wane waat fii ci. émission jàkkaarloo émission wala ma émission euh, quartier général mhm. euh, di ko sant bu baax di euh, ñaan suñu borom yàlla bu mu nekk sur dernière quartier général di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu sama jigéen ñi ñaawul ñii Mamadou Mouhamed maa ngi nuyu les caméramans di ci profito di baalu ak àdduna bi yëpp ndax weeru njégal la mhm. di nuyu ñi nga xamante ne ñooy kilifa kër gi di leen baalu aussi parce que vous savez euh, mm. euh, euh, li ngeen di nekk mu ëpp li ngeen nekk waa kër ga voilà mm-hmm. di kontaan bu baax émission bi c'est très important et puis c'est tellement adduna bi yëpp koy seetaan mm-hmm. vraiment vraiment ok yow doo doo conjugué verbe partir sax dama lay mixé dans quelques minutes ci mixeur bële parce que franchement bu fekkee nii laa nar a dundee quartier général laay laay la laa moo tur na la dag maa bëgg maa maa da maa bëgg mixé léegi nii dama lay mixé <laughs> dama lay mixé léegi nii dañuy dañuy jàll euh, balaa ñuy ànd ak euh, Sophie pour mu euh, toggal ñu xëdd bi waxtaanee beneen point bu important wax nañu pitbull yi wax ci lakk yi léegi dañuy wax nag ci insa insalubrité mhm. ñàkkum cet gi ñu seetlu ci dëkk yu bëri surtout VDN bi loolu mooy mot de quartier bu tey bi bijou alors mot quartier dafay ñëwaat comme ni mu koy defee chaque QG actuellement ñu dem waxtaan ak waa Sacré-Cœur euh, ñoom nag li leen naqari mooy comme euh, li nga xamante ne président moom la jógtee actuellement ne nañu désengorger dëkk bi génnee lépp li nga xamante ne salte la fii oto yi yàqu yi carcasse de voiture yi surtout da ngay gis koo xamante ne otoom daf koy teg fenn moom sax boo demee fàtte na ne bàyyi woon na ko fa donc mu nekk affaire yu bëri yoo xamante ne Ngoné Njaay géwél nee du ngeen libéré Njaay mi <laughs> yow dinañ la libéré léegi <laughs> donc désolé vas-y tu disais de. y a euh, yoo xamante ne mu mel ni mbedd bi finalement dañ naan mbedd buur la mais nit ñi dañoo miin buur ba nga xamante ne. Hmm. lu leen neex la ñuy sànni ci mbedd bi salte bu ñu jénnee seen kër yi ñëw indi ci mbedd bi ñenn ñi nga xamante ne dañuy jël mbedd bi occupé ni mu occupé ko ni mu leen neexee donc waa Sacré-Cœur ñoom loolu la ñuy kaas surtout li féete ci côté VDN bi ñu seetaan leen ñëwaat. quartier bii ñu ne at yi passé dëgg-dëgg nekkoon nañ fii si anam yu rafet ndax suñu cadre de vie ñun suñu bopp amélioré woon nañ ko ba nga xam ne daal suñu dëkkuwaay neexoon na waaye at yi passé yëpp gis nañ ne daal mu ngi détérioré wu ndax ay phénomènes yu bees yoo xam ne mu ngi fii am muy ay encombrement wu voiture muy ay euh, occupation anarchique si VDN bi ak tamit euh, ay garagistes yu fi ne environnement bi nag problème yi délégué de quartier bi wax léegi ci la bokk muy inondation yi parce que am na côté boo xam ne inondé muy eaux usées yi parce que am na foo xam ne ci boor miiru aéroport bi ndox mu salte bi daf fay faral di di di di génn euh, occupation bi anarchique kii ku nekk daal ruq bu nekk daal kenn teg na fa dara ruq bu vide daal teg nañ ko dara ba fii moom xaw a mel ni euh, marché bu paasee loolu affaire sécurité bi tamit sas nañu ci parce que fii amul sécurité parce que bu dee ku nekk day ñëw dëkk ku nekk xam nga day ay façon nit bu nekk dañ fiy néew bu ko defee nag ah problème yi daal di fi daal di fi nekk sunu xar yi bëgg nañu ay infrastructure yoo xam ne dañ fay defee sport ah, ak affaire culture ah sunu jeunes yi war nañ leen jàppale former leen encadrer leen ah, ci lépp loo xam ne xale war na koo am bande verte bii nekk fii ñun mooy suñu archive quartier parce que ku wax histoire euh, bande verte bi rek wax nga problème yi quartier bi yëpp ba mu sosoo ba léegi te ñun ñëpp dañ ci defoon suñu bakkan di si di ko gérer de 2002 jusqu'à 2013 di si cotiser presque plus de 500 000 mu at bu jóg daan nañ ko si defar amoon na parc sportif amoon na parcours sportif amoon na ay terrain que amoon na terrain football yëpp. problème bi ñu am mooy euh, mooy surtout euh, inondation yi parce que ñun euh, zone bu ñuy nekkee par rapport au quartier ñun dañuy suufee ce qui fait que taw bi yëpp bu tawee pratiquement luy jógee si kii yëpp si sunu sunu sunu côté. la ndox bi di kii te bu ko defee comme ñun dañu sës si ñaari miir yi miiru aéroport bi ak miiru cimetière bi ndox bi du am fu mu génnee léegi ndox boobu nag mooy ñëw di dugg si kër yi ba fu mu ne nii kër yu bari kër yu borom kër yu bari sax dañuy mujj obligé bàyyi seen kër. parce que ndax kii lu ñuy yàqule par rapport aux encombrants yi nga xam ne c'est un phénomène qu'on a constaté depuis environ trois ans des mécaniciens qui ont été délogés fële euh, fu ñu nekkoon au niveau de l'ancienne piste dañuy ñëw submerger ñu complètement bon léegi actuellement nii euh, dañu aménagé woon ay trous ay pax si euh, muru muru aéroport bi pour que ndox bi bu ñëwee mu mën a jàll léegi nag ñoom bi ñu egg bi ñu ñëwee ak ay charbonnier dañuy fatt foofu yëpp mu ngoog di ab mbootaay boo xamee ni mu ngi fekk baax boori VDN Sacré Cœur bi ñu leen seetee sax mu ngi bëgg a yàgg euh, mais euh, ba tey mbir mi euh, dafa nekk d'actualité daanaka du VDN rek mais gox boo dem mhm. ñàkkum cet gi daf leen sonal bon après di ngeen ma ne tant ya y a vie y a déchet déchet mhm. moom mënta ñàkk mais ñu gérer ko organisation la laaj il faut ñu gérer ko ba pare Pape Cheikh ñoom dañu dëkk seen quartier organisé wu de telle sorte que mm. ndox bi bu ñëwee du taxaw mm. xool nu ñuy dindee seen ay mbalit mais mais ay nit ñooy ñëw jékki-jékki fàtt fi nga doon jàllale ndox bi mhm. jël seen mbalit teg donc finalement doo ci mën dara étude yi tant que y a vie y a mhm. mais actuellement nekk nañ ci air boo xamante ne damay topp nit ñi di leen fàtt di leen ko wax parce que euh, c'est alarmant ñi ngi ñi ngi risqué sixième vague d'extinction massive boo xamante ne nit moo ko nar a ndax yeneen yi am yëpp ay catastrophe naturelle moo ko moo ko andi bi mujj mooy dinosaures yi ñu waxoon ñoo fi nekkoon jóge nañ fi ay météorites ñoo leen fi dindi mais bii nii nar a ñëw à peu près 70 pour cent ci li nga xamante ne moom moo constituer la vie sur terre ñun ñoo ko nar a indi ndax tilimal bi ñuy tilimal ndax ni ñuy utiliser nature bi ndax ni ñuy sànnee mbalit yi te du dugg ci biir suuf si du du désintégré wu comme il se doit donc li ñu nar a def mooy yàq nature bi ba suñu ay doom duñ fi fekk dara te lii yëpp ci li koy andi la la bokk donc war nañu ñun fu ñuy nekk jéem a xool muy set jéem a jël mbalit yi yóbbu ko fi mu war a nekk jéem a recycler jéem a protéger planète bi mais du ñu toog rek ku nekk naan mbedd bi mbedd buur la lu ma neex laa fii def bu waa quartier bi ñëwee nga leen sa yoon nekku ci parce que du sa biir kër du biir këram mais environnement am la donc war nañ ko sàmmal bu baax. voilà et puis faut ak mbedd bi mbedd buur la euh, comme j'ai dit tantôt fekk ñu ngi dund moom mbalit dina am. Euh, mm. xanaa organisation rek la laaj. ak sanction koy def te sanction yee ca war àndu ci loo def tey bu subaa da nga koy defaat. Mm-hmm. am na ci quartier yoo xamante ne jii ña fay dëkk xam nga lan moo leen gën a metti mm-hmm. mooy seen dëkkandoo dañuy bàyyi ba guddi ñu jëlee seen poubelle mbalit ci seen mm-hmm. biir kër ñëw teg ko ci bopp koñ bi. parce tout simplement tayal nañu oto mbalit bi ñëw ñu jógee seen kër ñëw sotti ko jëlaat seen poubelle yóbbu duñ ko def de mm-hmm. dañuy bàyyi ba guddi ñu jël poubelle bi teg sa bopp koñ keneen ak keneen def ko le ñu ne tondikate mbalit dañoo grève du jëlaat mbalit ma de fa lañ koy bàyyi guddi gi aussi même chose donc du koñ ba day nekk dépotoir d'ordures ña koy xam nañu leen mm-hmm. buñ leen jàppoon tey duñ leen teg benn sanction mm-hmm. beneen bi topp mooy Pape gis nga problème mbalit valoriser wuñu métier am tonni mbalit. Mm-hmm. du sotti. par exemple réewum France ci sama xam-xam bu gàtt. Mm-hmm. pour nga doon éboueur il faut que d'abord da ngay am këyit. buy wane ne citoyen français nga. Mm-hmm. mais fii Sénégal ñi amul luñ def rek ñoom la ñuy tonni loo mbalit yi. après même conséquences yi lay doon. il faut ñuy sanctionner mais également jël ay mesures. c' est comme soxna si doon wax mu bëggoon ko cee dolli. li fekk équipé wuñu sapeur pompier yi. lakk yi te lakk yi bu fi jugee dégâts yi day gën a yokk xam nga gars yi am nañ engagement quand on dugg ci benn corps boo xam ne la ñuy mooy sauver ou mhm. nit ñi di buuxante di ca dugg ça veut dire am nañu yéene am nañu engagement bi mhm. mais aussi tamit léegati neen naxul ay bëy voilà am déet moi je pense que sanction bi gën mooy peut-être mettre des poubelles après mettre des agents yoo xamante ni ñooy surveiller poubelles yooyu euh, pour barkeel dañ koy jël jaay ah, boo koy def ñu nga baal ma Marie-Louise que moo yokku problème mu euh, euh, mbalit yi. Mhm. Euh, parce que da ngay nekk ci yenn zone yoo xamante ni ñun ñëpp ah ñu bëri ci ñun ay charrette ñoo ñuy ñëw jëlal si suñu mbalit. Mhm. mais charrette yooyu di jël si mbalit yi après fan lañ koy dem tour mhm. ñun xamuñu ñaata pàq la fi la fi ay tourkatu sareetu mbalit nangu ba mu mujj doon dépotoir te à la base ay terrain jàmbur la demal par exemple VDN. ginnaaw euh, ci yoonu tegg bi jëm Ouest Foire. Mhm. côté boobu yëpp mhm. ay dépotoir gi côté kër Acaawan eh, voilà mi ngi noonu mhm. donc côté boobu yëpp ay côté dépotoir mbalit lañ ko mujj def et à la base pourtant ay terrain jàmbur la woon mais da ngay gis ni que ñi roñ euh, charrette mbalit yi nga xamante ne dañuy jël ci kër yi ñu leen di fay ñoom ngoon gi li ci ëpp ci côté yooyu la tuuraat mbalit yi donc foofu oto mbalit demu fa pour jël ko donc man je pense que euh, mooy li Mouhamed wax il faut vraiment organisation euh, pour ñu mën a gérer waat le problème mais organisation bi li ma wax léegi peut-être c'est une bonne idée euh, poubelle yooyu ñu ñu defar mu bëri ñu jël fa ay xale teg leen fa borom saret yooyu par exemple euh, loolu non seulement mën na créer emploi mais mën na permettre ñoom ñuy surveiller poubelle yooyu peut-être journée 3000 éducation à la citoyenneté ci garder garder poule bi baax na de tu vois ma ne éducation à la citoyenneté la ñu war a def. Mm-hmm. parce que je me dis que dès le bas à l'école la ñu war a jàng xale yi que salubrité da nga war a euh, sa environnement. Mm-hmm. da nga war a set waroo sànni poubelle waroo sànni ci mbedd bi. Mm-hmm. waroo sànni wan war dafa war a am comme ni nga ko mën a wax ni ay poubelle yoo xam dañ koy teg ci mbedd bi. sànq Mouhamed dafa wax sanction pourtant sanction am na. loi bi prévoir na sanction. et c'est des peines allant de deux mois maître maître mu poser problème avec su may wax sanction kay loolu la maanaam ñu. appliquer ko sanction yi parce que. c'est que mbalit tamit dafa sànniwee. moo tax mais mais mais te fa nga koy sànni na ko parce que mu dul mbalit muy encombrement épave yi ñuy sànni yëpp. ci yooyu yëpp c'est sanctionné par la loi. épave moom Sénégal dañu ko tàmm ba nga xamante dafa limite bokk ci biir environnement bi ay oto yoo xamante ne def na fi 10 ans 5 ans. la war a nekk tranquillement du déranger yenn oto yoo xam ne dafa màgget sax pollution lay état bi génnee budget boo xam ne da leen di delloo seen xaalis valeur oto bi. yóbbu ko kas ñi yi est que ñu nit jaral nañu ñu <laughs> xëy fajar gàddu ay poul mbalit yóbbu ko fi ko war a yóbbu. mais mais mais ah. mais Pape Cheikh ñu koy def. Euh, euh, est-ce que yéen a koy def. Euh, waaw sur ta très saine communion est-ce que yaa ngi koy def. laisse ma très communion tranquille mais Mathilde après giñal ma ci Serigne Fallou ndax yaa ngi koy def. tey ci yéen ñëpp laay dugg. Mohamed dernier mot am na benn benn action sociale wax na commencé na sur Facebook ñoom Soya Dia ñu ngi koy def je le salue au passage. Mm-hmm. ñoom dañuy def chaque dimanche ñu dem ci rue yi nettoyer ba mu set. te fayul leen dërëm suñu <coughs> action boo xamante ne citoyenne volontaire tu vois un peu je pense que chacun ñun amuñu jot am na ñoo xam ne amuñu jot mais man su ma amoon jot damay dem euh, bokk ci loolu tu vois un peu c'est un engagement personnel mm-hmm. comme ni ma ko waxee de éducation c'est vrai que cette culture là aussi culture là ah, cette culture là mm-hmm. sanction sanction tëj je ne suis pas pour mais sanction fii Sénégal xool naa ba xool du rek jël nit ki tëj ko privé de liberté sanction pécuniaire gis nga nit ki boo ko nee fii boo fu ne boo sàngee fii mbalit donte sa yi ñu xool sa revenu mensuel bu fekkee da ngay yow tuur mbalit na am ñu ñëwee par exemple dagg nañ la ko mille francs dootoo ko defat mais am na amende moom kii euh, mhm. amende de mille c'est que au je pense que loi bi dañ ko war di appliquer parce que kaso barre juge bi sermonné la. Mm-hmm. parce que juge yi am na ñoo xamante ne moom soo ñëwee à la barre da ngay lox. Mm-hmm. dañ lay sermonné bien bon comme ku yore xale. Mm-hmm. soo demaatee doo ko defaat. parce que ñun on est bien Sénégal comme on dit on on pose les lois on les applique jamais. voilà mais mais lu ma jaaxal. ci sujet yëpp. lu gàtt rek même jeexital bi mooy ñëwaat fii Sénégal on banalise. on banalise tout mais li am nga lu ñu naan tom taxe ordure ménagère. est fu muy dugg te pourtant dañ la koy imposer. Hmm. après fan lay dugg. moo tax affaire bi la. cest dire que boo ko lijjantee fii da ko lijjanti ca kaw. te yow bu fekkee da ngay fay ñu lay dagg loolu mais attends problème bari doo du poser sa koñ. mais Pape Cheikh li ci lu gàtt rek ci loolu noonu. bu ñu fàtte mbalit li Mouhamed wax bu fekkee nit moo koy def àq dafa sew. la de àq la. Mm. heureusement que oustaz dafa dem. Mm-hmm. mais loo xam ne du dugg ci sa biir kër. Mm-hmm. waroo koo teg ci buntu kër jàmbur. Mm-hmm. oto ko loo xam ne que ni tamit naka sa dul noonu ak yeneen ak yeneen. donc nañ ci bàyyi xel mais aussi nañu xam ne teg ci sa buntu kër. j'espère bien que waroo koo teg ci buntu kër Pape Cheikh. xam naa ne oustaz fi nag comme dinañu gindi euh, ci àq boobu nga xamante ni